des Sénégalais d'accomplir ce devoir citoyen qui est très important. Il s'agit de choisir le vote s'est très bien passé. Les échos aussi qui nous parviennent de l'intérieur du pays laissent penser que jusqu'à présent les conditions sont bonnes. je pense qu'il n'y a pas de doute qu'à l'issue de la journée d'aujourd'hui, on devrait connaître le prochain président de la République. Le moral est très bon. Nous avons fait ce que nous avions à faire, c'est de faire le tour du pays, de présenter le, programme qui est un programme de consolidation, d'approfondissement, d'accélération de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc nous allons accélérer, nous allons améliorer et nous irons plus vite. Ah, Je pense que tout cela va se passer dans des conditions on l'espère. Quel euh, le message que nous lançons, c'est un message de paix. Le Sénégal nous appartient. Nous sommes tous des enfants de ce pays. Nous avons compétit. Euh, la campagne électorale s'est bien passée, quand bien même elle a été courte, en tout cas elle s'est passée dans des conditions assez particulières, elle a été courte, mais dans la sérénité, dans le calme. Il n'y a pas eu de, de, de, de, violence, en tout cas, euh, n'a pas été signalé de violence euh, excessive. Je pense, que, je pense que c'est. On peut espérer que tout cela se terminera très bien. Mon souhait le plus ardent, c'est que demain matin, que les Sénégalais puissent connaître le prochain président et qu'ils puissent vaquer tranquillement à leurs occupations. Vous êtes confiant pour le premier tour gagner suis, les élections au premier tour très très très je suis très très confiant. d'accord président ñu def ko ci wolof. waaw jërëjëf kon dañuy sant ci yàlla julli ci yonent bi euh, ñëw nañ fii tey ci suba fi ñu ko doon faral di defee wote euh, nañ ko defee gis nañu aussi conditions yi baax na li ñu dégg gum ci réew mi ba tey jii mooy nit ñaa ngi wote ci jàmm ak salaam. ñu ngi ñaan Sénégalais ñu génn dem wote ji parce que waxtu bi dañu war a wax waxtu bi dañu war a ci nga xam ne mooy jiite réew mi euh, def nañu campagne électorale ci jàmm salaam euh, coow li bari woon na waaye li ci ëpp ci jàmm ak salaam la amee loolu nag mooy Sénégal euh, mën nañ di werante mën nañ di xëccoo mais ñun ñoo bokk ndey ñun ñoo bokk baay ñun ñoo bokk réew mi te réew moom important li may ñaan fi nekk ni mooy yëpp jeex ci jàmm ak salaam suba Sénégal xam moo war a nekk président de la république yaakaar nañ ni li nga xam ne ñun wax nañ ko ak li nga xam ne def nañ ko ak li nga xam ne gis nañ ko ci mbooloo jàpp nañ ni ñun war a nekk waaye suba bëgg naa daal Sénégalais yëpp bu ñu ku nekk dem ci sa soxla dem ci sa aajo. am nga yaakaar ci jàmm ak am nga yaakaar gagné ko ci ci premier tour. waaw am naa yaakaar bu baax nag am naa yaakaar bu baax ci li ñu gis li ñu nit ñi woon ñu leen di sant bu baax di leen gërëm parce que li ñu nit ñi. doon dégloo ni ñuy toppee ci campagne bi doon na loo xam ni dal na suñu xel li ñu bëgg mooy liggéey bu tàmbali bu gaaw bu ma sañoon suba naaw suba gën ba tardé ñu nekk ci liggéey bi ndax réew mi soxla na ko su woon nañ ko xale yi mag ñi jigéen ñi góor ñi Sénégal yëpp bëgg nañu am jàmm loolu dañu ñu wane ci campagne bi Sénégal jàmm lañu bëgg loolu la ñu